ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله laaj bi ñu fi dikkal aju ci ñaari rakaa fajar ñuy laaj nuñ koy jullee daa dafay am saar wala du ko am qabla kulli shay'in ñaari rakaay fajar dafa bokk ci jaamu yàlla yi gën a mag day aïchatu radiallahu tabaraka wa taala anha wax na ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax na ne rakaat alfajri xayru min addunia wa ma fiha ñaari rakaay fajar ñoo gën adduna ak lépp lu nekk ci adduna xadis jàng ci muslim ci beneen riwaay yonentu sallallahu alayhi wa ne ñoom laa gën a sopp ñoo gënal àdduna ak li ci biiram ñaareel bi ndey Aïcha it wax na ci xadis joo xam ne mi ngi ci Buxaari mi ngi ci muslim ne yonentu sallallahu alayhi wa amul genn jaamu yàlla gu mu gënoon a fonk ci naafile yi gën koo sonne gën ci constat jaamu yàlla yi ñaari rakkaay fajar loolu nag li firi mooy ñu sonnee ko hmm. fexe ba duñ sàggan ci ñaari rakkaay fajr ci almadhabul maliki dañ ko tuddee raxiba mooy loo xam ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam dafa xemmem loo jaam yi jaam yi ñu def ko ba pare dig ca dige ca tudd ca yool yool bu bëri fajrun raxibatun wa tuqdaa li zawalul fardu yuqdaa abadan wa bi tawal li gën a siiw ci malikiyatu nag dañu wax ne fatiha rek ngay jàng booy julli ñaari rakka ay fajar lu tax ndax xadisu nday aïchatu radiallahu anha wax ne yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama dafay woyafal jàngam dafay gàttal jàngam woyafal ko ba ma foog ne sax eh, est-ce que tari na fatiha bam jeex bi mu waxee loolu nag ñu ne comme mi ngi sikk sàkk ndax fatiha bi mat naa matul saar taxul ñuy wax loolu lañ déggee ci waxi ndey ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam jàngam gaawutoon dafa daloon dafa alihi wa sallam loolu mooy jihatul athar ci jihatul nazar ñu qiyaas ñaari rakkaayu fajar ak ñaari ràkkaayu suba comme jullig ñeenti rakka te jullig ñeenti rakka ñaari rakka yi dafay am fatiha ak saar mooy li gën a siiw ci madhabu waaye nag li ëpp ci ñi àndoon ak malik du loolu lañ jëlee ci malik imam ibnu qasim nee na jëlee na ci malik ne ñaari rakka dañ ciy jàng fatiha ak saar wu gàtt ci saari alquran yi loolu nga xam ne moom lay ibnul qasim rahmatullahi alayhi wax ak li yeneen àndandoo yi malik ñoo xam ne sax dem nañ ba ñoom yegg ci ne dangay ngay jàng fatiha ak qul yaa ayyuhal ci rakka bu njëkk bi hmm. fatiha ak suratul ixlaas ci rakka ñaareel bi hmm. te loolu dëppoon ak xadis daañ ci dikk hmm. wax ji ñu bari ci borom xam-xam yi ngir yi moom lañ dëgëral ku mel ni eh, ibn arabi ibn al arabi al def yu ak ku mel ni Cheikh Omar ibn Abdul Barr rahmatullahi ala aljamia wax ji nag li koy dëgëral mooy xadiisu yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ne yonentu ci boppam xadis jàng ci muslim saydna Abu Hurayra ne yonentu jàng na fatiha ak qul yaa el kaafiruuna ak fatiha ak suratul ixlaas ci ñaari rakaay fajar saydna Abdullah ibnu Omar ne dégg nga gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seetaan naa yonent bi ramaqtu rasulallahi la wax sallallahu alayhi wa sallam lu mat weer ñaari rakka yi muy julli su jullee timis ba noppi ak ñaari rakka ay fajar bu ca nekk dafay jàng ci bu njëkk ba suratu qul yaa ayyuhal kaafiruuna gannaaw fatiha bu ñaareel ba suratul ixlaas gannaaw fatiha loolu mi ngi ci nasaa'i bu dee xadisu seydna abu hurayrata mi ngi ci muslim loolu mooy li nga xam ne ni moom la tegtal gën a dëgëral te lii mooy madhabu alchafiiya mooy madhabu al alxanabila bu dee suñu mbokk dégg nga al ahnaaf nag waa kër abu xanifata ñoom dañoo wax ne dañoo bëgg nga sax nga guddal njàng ma ñoom ñu ne sax sa wirdu guddi su la rawee sax mën nga koo jàng ci ñeeri rakka ay fajar imam taxaawi layal na ko ne comme tatawwu la hmm. jullik coobare lañ ci gën a sopp mu ne mooy guddalum njàng waaye li gën a wér nag te dalil wane ko mhm. mooy woyafalum njàng woyafalum njàng moo xam fatiha rek la mhm. li gën a niru lu wér mooy fatiha aku saar rawatina qul wal ya qul yaayil kaafiroon ak qul mhm. euh, dina dikk sax fatiha ak aslëf ci alquran ndax saydna abdullah ibn abbas dana wax ne yonentu sallallahu alayhi wa jàng na ci ñaari rakkaay fajar dégg nga qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna ga ca baqara mhm. ak qul ya ahlal kitaabi taala ila kalimatin sawain baynana wa baynakum ga ca ali imran bu dee seydna abu hurayra radiallahu anhu mhm. moom nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam dégg na yonentu sallallahu alayhi wa sallam jàng ci ñaari rakaay fajar qul amanna billahi wa ma unzila alayna ci rakka bu njëkk bi ci rakka ñaar bi rabbana amanna bi ma anzalta wa tabana rasula faktubna maa shahidin wala inna arsalnaka bilxaqi bashiran wa nadiran wala tasal an ashaabi aljahimi addara wardiyu dafa am sikk sàkk ci ban ci ñaar yi liñ ciy déggee rek mooy boo jàngee fatiha rek wér na soo jàngee fatiha aku saar wér na te moo gën a jàmtalu ne